comment nga kon loolu du ma intéressé dinaa ko nangu mais képp ku ma gën a sa micro ku yàq Medina di ci wax boo ma wootee dam naa demal ñu tontu la waa ASC Koussoum du ASC bi sax ñu dëkk ci quartier ba ñoo demandé woon audience di leerlu defal naa ko ñu dëkk démb dames defal naa ko ñu defal naa ko ñeneen may wax ni tëjuma sama bunt bu kenn dañoo bind demande d'audience maire tontu la na la woon demande mu bind na woon de copie demande bi wala boo ka mu yónni indiwu ko man tëjuma samay bunt ndax defuñu lu ñuy nëbb te yaakaar naa ni am na wax yoo xam ni jëm na kaw ah jot naa enregistrement yi dinaa ko teg ci yoon dem ñoom ci yoon ñu indi seen i preuve ndax yomb na trop ñu teg la caméra rek nga naan diw yaa moom terrain bi diw yaa def lii yaakaar noonu loolu dina leer naa fekk nag dafa bëri ci dëkk bi parce que conseil municipal de Médina mënuñoo daje voté ko à l'unanimité sous préfet approuvé ko au nom de l'État loolu conseil municipal du jël conseil municipal du exécuté pour ñi xamul conseil municipal day délibéré c'est l'organe délibérant c'est le maire qui est l'organe exécutif conseil municipal dafa ni maire jox nañ la ndogal nga seet promoteur bu defal ñu gazon synthétique bi wàccoo naa man farayam mhm. kon ku naan président ASC wër naan président ASC ndax signé nga kooku journaliste bu muus a du ko laajte journaliste bu muus terrain maire lu ci président ASC di signé amul benn président ASC buy signé ci këyitu maire yi ñiy jël décision conseil bi la jël nañu ko ASC lan lañ leen wax xaalis bi lañ leen may comité exécutif bi dañ leen ci boole parce que mairie bi gazon bi kese moo ko intéressé dara soxalu ko yi au lieu ñu continuer yàq nañu seet li ñaaw ci Médina ñu def collectif jële ko fa ndax gal terrain bi yàgg naa am ndox ay agresseur ne fa mosuñu leen cee dégg xanaa Médina bu naree rek laay dégg collectif ani collectif bi fi nekkoon Assane Diouf dañ leen déggati Martin Samb dafa ñàkk ñi man duma tontu kooku parce que fi tool nit bon la li muy wax dafay fen moom voté na délibération bi mu ngi nii turam délibération baa ngi nii turam a ngi nii dama ñu la non dama ñu la délibération baa ngi nii dama la bëgg woon ni nit boo wéetee na nga gore boo wéeti li ko na gore amul lu ñu fi def jamono jooju te Martin voté ko boo xoolee délibération yi feuille de présence voté na ci nit nag bul dem ba ñàkk bëgg a ñànki Martin seetlu naa atta ngi nii lu mu wax dafay fen lu yàq mairie bi parce que comme que ñun te xamatul fu day neexal ay a ànd ak ñoom mu bëgg a constituer en opposition kon seetlu naa ne atta ngi nii lu mu wax ay fen la jéggal naa ko te yàlla tax wasalaam xam nga c'est-à-dire ñiy wax dañoo yàkkamti am na ci loo xam ne man dama jommal loolu sama bopp dama ni du loolu maire comme que jël naa sama cër yëpp delloo ASC ñu ni créé de gestion bi prix kenn fixé gu ko ku ko wax day wax lu ko neex ndax comité de gestion bi toogaguñu wax waxi prix ay seet naa seeru man xamaguma lu ñu koy luyee bis bu ñu defee première réunion ba ni nangam la sañ nañu ko ni waaw nangam nangam bi wàññi lal ñii wala defalal nangam wala ñi ne la wala boog ASC bi ni ko est ce ma la joxaatee sama 1 million bi di ma ko jox 20 jours yoo xam ne dama koy entraînement gratuitement yëpp ay waxtaan la a wax dafa ëpp waxaguñu dara ndax comité de gestion bi installé gu ma ko gazon bi laay xaar ñu teg ko ma woo ñu commencé bége ñii ñu joxee 50 pour cent da ngay joxe 50 pour ñii nii ma boo bëggee ASC di entraîner gratuitement du ñu fay dara Thierno Seydi rek moo nangu ay di entraîner gratuitement école de football yi ba pare mu joxewaat un million mais ñeneen ñi ma doon ay atiat te yaakaar naa am na wax boo xam ne kii wax dafa xamul dégg naa mu naan organisation bi ki ñu jox affaire bi Thierno Seydi këyitam baaxul non dafa juum de délibération bi voté nañ ko ay at te amuñu promoteur te man am na këyit amul këyit xanaa xamul ni mairie mën na sax signé contrat ak benn promoteur benn nit nit mën nga signé ak moom parce que léeg-léeg Gaston Mbengue day promoteur day signé combat de lutte bu la neexoon sax bañ ko jox société jox ko nit nañu yéewalante nag mais kan moo ko gagné ko ko def amatul njëriñ xam nga lu am njëriñ Médina tey bokk na ci commune yi nga xam ne gazon synthétique dernier cri lay amee comment nga tey vraiment maq suuf si day jeex quoi. ASC yi nañu préparé wu ASC yi laay waxal de. Hmm. nañu préparé wu. coupe du mai ci mois d' bi bu neexee yàlla fii laa bëgg ñu fubalee ko te bi yoon nag ASC bu gagné 5 millions ngay yóbbu. Ah, xam ne ñu ngi ko doon liggéey ak anciens internationaux te ñoo def seen xaalis te loolu man déggu ma ñu wax ci donc ci gannaaw terrain basket la xëy na li muy gratuit tax te ci kanam tamit am na am na benn centre d'accueil bu ñu fi def nga xam ni léegi. bu yow waa Dames wala waa Kosoom bu invité benn ASC bu nekk par exemple Casamance bu ñuy naan fu mu ko mën a dalal fu mu nekk moom ba ci lendemain mu ñibbi wala boog waa Casa Sport ñëw war a fubal si Dakar mais dinaa mën leen ko luy am ci dara. te fii gis naa fi concert Wally Seck ba pare. fii gis naa fi concert yu baax nag. ñoom El Hadj ñoom Pape Birahim. waaw waaw waaw El Hadj ak Pape Birahim. mais jazz oui jazz jazz. jazz ñëwal nii jazz ñëwal nii à côté. pourquoi pas ouverture bi. mais mais bal amu fi ñu jox maire mu tënk. waaw mën naa ko waaw bal bal moom amul. ani bal. waaw waa inauguration bi. amul bal. waaw ah, waa inauguration bi. non amul bal waa inauguration bi. non fii dafa gili sa daa ba seen. waaw waa inauguration bi la nga yàggal. gis nañu béy naa dafa yàgg am ay talent ay émission gàllankoor. maa ngi moom ñoo football école de football. Siré Dia maa ngi moom ci Marakaana bi ñoo defandoo école de football Dame Diop ak Ousseynou Diop mais moom a dàq football. man théâtre laa mën ak politique. amul la intéressé non Médina am na lépp xam nga lan moo ñu manqué hôtel de luxe parce que da ngay am gan ñu ne su ma ñëwee Médina bu ma génne bu ma fanaan ay auberge lañu am sama xeet bi ñëw mooy fexe a xam ne ku duggati Médina doo génn. mais am na léegi champs am brise dorée am gazon synthétique lampe ko am ay restaurant yoo xam ne restaurant mbedd yi laa bëgg léegi jël jigéen ñi di créer leen ay GIE bu ko defee comme que localité dañoo bëri jigéen ñi ma mutu ñi ma mën a wutal liggéey mu am ay ay ay SOS foot nga xam ne loo am lekk man yooyu yëpp xalaat naa ko def balaa am ñuy jeex mais lii complexe la déggoo ma ne conseil xaj na fi déggoo ma ne dëju waale bu passé la gis naa fi conseil waale ñoom Pape Birahim mi gën a ak ay jaas ak gars ma ko wax lépp. Fatou ndax dama bett waaye kontaan jàppal ni daal Médina complexe bi damay dégg rek ñuy wax terrain mais complexe sportif la te fii mën na jël handball mën na jël lépp mën na jël volleyball jël lépp jàppal ni arts martiaux lépp dinañ ko développer Médina li bëgg daal mooy Médina nekk le berceau du sport ñoo woolu woon benn réunion boo xam ne pour affaire terrain Jaraaf bi la ñu dem ba si ñoom déglu leen kon yoon la ñu ñëw ba ci maire bi euh, ba ci monsieur le maire déglu ko dégg nañ ko nag nee nañ ko ñee nee na leneen rek lañ bëgg toog ak yow leeral yaa ngi comprendre moom nee na suba suba suba bu ñu bëggee collectif bi mun na ñëw ñu toog ak ñoom ñun ñëpp ñu fekkee ko mu leeral point par point ba affaire yi leer nañ donc nag heure yi amatuñu toogaay dañuy dañuy jóge fii léegi-léegi dem ba foofu seeti ñoom buuba ñoom Abdou Mbaye ñoom Vince ñu xool nag ba xam suñu leen ñaanee suba ñu gis monsieur le maire dinañ ñëw soobaa leen wax. mais gis nañ que bi recevoir nañ leen maire recevoir nañ leen. Mm-hmm. tey lan moo ci lan nga ci mën a jàngee. non xam ñun ñun ñun ñun assez kusum taxu ñoo jóg mm-hmm. ngaraaf dames parce que ñun dañoo jàpp ne loolu yëpp benn la zone ñun Médina moo ñu tax a jóg mm-hmm. xam nga ñun ay dañ fi ñëw en tant que Médinois moo tax ñu ñëw fi mm-hmm. donc nag ñëw nañ fi de luñ fi fi duñ fi dégg dal na suñu xel donc dañuy dem ci beneen côté bi parce que ñun heure yi ñun suñu sañoon ñun ak ñooñu suñuy grand la ñun ñëpp ñoo dëkk Médina duñu xiiroo duñu ŋaayoo amul xëccoo amul dara ah. dañuy dem waxtaan ak ko ñu ñëw réglé ko d'accord visite bi si waaw xam nga euh, dama saan benn émission boo xam ne Tafa Diallo la ak Maako 2 mhm. ñoom ñu wax loo xam ne ñoom ñoo maîtriser loolu parce que mos nañ nekk professionnel. Mhm. ñu ne euh, jour bu ñu la signé boo demee ci Europe. lu ñu lay njëkk jàngal mooy nan la ñuy nan la ñuy nan la ñuy fubalee ci gazon mhm. xam nga maanaam ñun amuñu woon chance fubal ci gazon depuis bu ñuy nekk xale donc lii peut-être suñ ko amee suñu joueurs yi dinañ tàmm synthétique ba noo xam ne suñu demee dañuy ñëw rek bokk ci